أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu aq di leen baal aq di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nu yàlla boole jéggal ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala aaya bi ñuy fàttalante tey mooy aaya 216 ci suratul baqara aaya bi bu ñëwee ci maana li mu tënk borom bi tabaraka wa taala mooy xabaar yonentam ak jaami yàlla yi nga xam ne way gëm lañ borom bi tabaraka wa taala di leen xabaar di leen xamal ci aaya bi ne moom yàlla mooy ki yoonal mooy ki farataal ci kaw jullit yi xeex loolu ñu naan qitaal xeex kan la ñuy xeexal mu ne bokkaalekat yi ak yéeféer yi waaye moom yàlla subhanahu wa taala ci jamono bi muy sant jullit yi ak seen yonent xeex ak ñaari kuréel yooyu muy bokkaalekat yeeg yéeféer yi moom yàlla ku xam la ne jullit ñi lii mu leen di sant bëgguñu ko wa huwa yaalamu annahu makruhun lahum bi tabihim moom yàlla ci jamono bi mu jógee di santaane jullit yi ak seenub yonent ñu xeex ak bokkaalekat yeeg yéeféer yi ci jamono boobu yàlla xam na ne li muy santaanekat ñi mu koy sant dañ koo sib nekkul lu ñu rafetlu nekkul lu ñu bëgg lan moo tax jullit yi bëgguñu xeex mooy dafa am lu ci nekk ci ay metit dafa am lu ci nekk ci ay coono dafa am lu ci nekk ci dépasser énergie dafa am lu ci nekk joxe alal dafa am lu ci nekk joxe bakkan te loolu nag wax dëgg yàlla nekkul lu neex loolu moo tax looloo tax yàlla subhanahu wa taala ne maa ngi leen di sant loo xam ne bëggu leen ko parce que benn côté bi rek ngeen di xool bu fekkoon ne lii ma leen di sant bi ma leen ko sante xool ngeen ñaari wàll yi lan moo ci nekk lan moo tax yàlla sant ñu ko ban njëriñ moo nekk ci ginnaaw kon jàmm rek mooy am mais jullit yi bi leen borom bi subhanahu wa taala sante xeex ak yéeféer yeeg bokkaalekat yi ñoom côté bi ñu xool demee ko mooy su xeex dafa métti de yor ay jaasi dajeg sa benn noon amaana moo la ëpp doole amaana fasam moo ëpp doole sa fas amaana armam moo ëpp doole sa arme moo gën a ñaw moo gën a gudd moo gën a jot amaana waa ji moo la gën a jàng xeex xëy na bala nga koy dóor mu dagg sa bopp wala mu dagg sa loxo wala mu dagg sa tànk loolu daal deret ji sànni tuuru loolu daal wax dëgg yàlla dafa metti parce que côté boobu rek lañu xool waaye dinañ suñ ñëwee ci kanam ñu ñëpp danañ ba danañ bokk ànd xam ana lan moo tax yàlla sant ñu xeex te mooy aljihaad fi sabilillahi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa axbarahum annahu maa yakrahuunahu qad yakunu xayran borom bi ne leen yéen a ngi nii ma sant leen li ma leen sant ngeen bañ ko te amaana lii ngeen bañ mu gën ci yéen léeg-léeg doomu aadama ñu wax ko dara na ko def fekk loolu ñu ko wax bëgg ko comme bëgg ko nag mbir mi mooy du ko def léeg-léeg doomu aadama ñu sant ko dara liñ ko sant bakkanam rafetluwu ko mu bañ koo def sunu borom subhanahu wa taala nee na léeg-léeg ma sant leen mbir ngeen bañ seen bakkan bëgg ko ngeen bañ ko def léeg-léeg doomu aadama bëgg dara fekk loolu nga bëgg sa jàmm nekk ci léeg-léeg nga bañ dara fekk loolu nga bañ sa jàmm moo ci nekk misaal bu gën a gàtt pour ñun ñëpp ñu mun ko dégg mooy léeg-léeg nga nekk xale bu góor nga gis benn xale bu jigéen bëgg ko nga ñëw ne sa papa kii laa bëgg mu ne la kii moom ànduma ci nga wax sa yaay mu ne la non comme sa papa àndu ci man ànduma ci léegi luy sa problème yow am nga problème gis nga ñoom ñàkk biñ ci ñàkk ànd yow looy naqarlu nga fekk boo laajoon paa bi waaw lu tax yow kii kii ma la présenté man la kii laa bëgg nga bañ boo ko laajoon dina la ci wax ay mbir yoo xam ne peut-être loolu mag ñi naan xale day taxaw walla mu yéeg du gis li muy xool paa bi mën na tëdd walla mu toog waaye muy gis loo xam ne yow gisoo ko lu mel noonu moom la ñu yàlla jàngal moom la ñu yàlla di jàngal tey ci aaya bii nu toll nii sunu borom subhanahu wa taala mu ne lii ma leen sant amaana yenn ci yéen bañ ko waaye yiw moo ci ne amaana ñenn bëgg ko waaye musiba moo ci nekk wa min zalika bokk na ci loolu yàlla di santaane te nit ñi duñ ko bëgg mooy aljihaad fa innahu makruhun lahum lu jullit yi bëggul la am na sax benn année boo xam ne jullit yi fii la ñuy daje ci benn barab bu tudd aussi yi fii ci Sénégal ci jamono benn waaye bu fi nekkoon bu tudd Abdou Diouf ñu daal di interdit baatu jihad ci l'islam ñu ne éliminer nañ ko jihad amatul yaakaar naa loolu ñenn ci yéen te di jàpp histoire seen xel fàttewu ko parce que yàggul mbooloo boobu ñu naan aussi fi lañ daje ci Sénégal daal di dindi baatu jihad ci islam ñu ne jihad amatul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne al jihaadu maadin ila yawmi alqiyama jihad dafiy nekk ba yowm alqiyama jihad dafiy nekk ba yowm alqiyama jullit yi ñoom daje ñu ne jihaad dindi nañ koy bu ko kenn waxati jihaad amatul mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu nañu anna tarkul jihaad mahbubun lahum julit yi moom ba jihaad bàyyi ko ñoom lu seen xel bëgg la ak seen xol waaye wa huwa charrun lahum bàyyi jihaad musiba la ci kaw julit yi musiba bu rëy musiba bu rëy rëy keroog bi julit ñi bàyyee jihaad ba léegi lañ torox boobu la julit yi mel nii boobu la julit yi alku boobu la julit yi torox lan moo tax bàyyi jihaad musiba la ci julit yi li annahu yushajjiu aduwahum ala qitaalihim wa stihbaahati baydatihim julit yi ñàkk bëgg bu ñu ñàkk bëgg jihaad day ñemeloo seen noon day tax seen noon yi ñeme leen day tax seen noon yi am fit day tax seen noon yi bëgg di xeex ak ñoom bu njëkk ba yonent sallallahu alayhi wa sallam bu takkee xare ne maa ngi ñëw ñooñu mu ne maa ngi ñëw balaa yonent yegsi lu tolloog weer dañuy tiit balaa yonent yàlla muhammad yegsi noonu lañ meloon jullit yi ku dégg ñoo ngi ñëw da ngay daw kenn amul woon fit dajeeg yonent yàlla muhammad ak sahabatul kiram xaalid ibnul walid kenn la ci sahaaba yi da daan wax yéeféer yi bu armée yi jàkkaarloo jullit yi nekk nii yéeféer yi nekk nii balaa xeex bi tàmbali mu ne leen ataytukum bi qawmin ñii ngeen gis ñu nekk sama ginnaaw yuhibuna al mawt kama antum tuhibbuna alxayaat ñii dee lañ gën a bëgg comme yéen ni ngeen bëggee dund ñii dee lañ bëgg ñii ma àndal kenn bëggu cee ñibbi ñoom ñoom dañoo bëgg dee tey xoolal ki nga xam ne su daan dem xeex day tàggu jabaram tàggu doomam tàggu ay mbokkam ne leen nañ daje ji aljanna firdaws nañ daje ji aljanna kenn ci ñoom bu demoon xeex deewul day fanaane naafi la ba guddi gi jeex nee na man damaa tooñ yàlla moo tax deewuma tey dafa am lu ma def ndax mënul nekk jullit yëpp di dee ci yoonu yàlla man deewuma Xaalid ibnul Walid keroog bi mu feebaree Xaalid mooy koo xam ne ci lislaam moo yóbbu lislaam Iraq moo ko yóbbu Iran moo ko yóbbu Koweït moo ko yóbbu Qatar moo ko yóbbu ba golfe bi yëpp Xaalid ibnul Walid moo fi yóbbu lislaam foo xool ci yaram bi maanaam yaram bi amul distance bu ñuy teg baaraam lu dul jam nañ fa xeej wala dóor nañ fa fles wala caw nañ fa jaasi yaram bi yëpp ay cicatrice la lépp lépp a dagg amul fooy xool lu dul jaasi dal na fa ndeysaan bi muy dee dafa feebaroon dafa sibburu woon mu tëdd ci lalam gars yi di ko seet si mu jekki-jekki rek mu dégg ci wetu fenêtre am ay fas daa di yuuxu noonu fas di yuuxoo fas bi ngexal yuuxu mu ne lii lan la ñu ne ko fas yi Muhammad yi ñooy jihaadi ji di tas diine l'islam mu ne dañuy tas diine l'islam man may tëdd ci sama kawlal mu ne bërét jóg jël jaasi ji daw ba ci buntu kër gi foofu la daanu daal di dee bi mu daanoo gaa yi ñëw mu ne xoolal rek maa ngi bëggoon dee ci terrain guerre bi ci toolu xare bi laa bëggoon dee tey maa ngi ni dee ci kaw lal tappet yi daal yal na dee rek kuy tappet yal na nga dee ci la waxoo xam juróom ja u fin li ayunil jubana tappet yi yal nañ dee ndax tappet mooy koo xam ne boo ubbee bët yi xol bi gis tappet su gëmmee xol bi day gis tapet soo nga fee bët yi xol bi mooy gis ma jox leen ci misaal dafa am benn buur bu amoon jarbaat waaye buur bi dafa am doom bu jigéen bu rafet mu am jarbaatam bu góor doom ji jigéen ji dem na nag ba tollu sëy ñépp bëgg ko waaye buur bi moom daf ci am xalaat mooy jarbaatam la ko bëgg a may parce que bëggul xale bi génn bëggul xale bi génn kër gi bëggul mu génn famille bi kon bu sañoon jarbaat bi moo koy takk waaye tamit bu sañoon jàmbaar moo koy takk jàmbaar mooy takk doomam comme doomu buur la jàmbaar moo koy takk mu woo jarbaat bi mu ne ko damaa bëgg ñu tëral pexe man ak yow jarbaat bi mu ne ko ban pexe mu ne ko dama la bëgg a may sama doom ji mu ne ah nijaay loolu de kon nga def lu baax ndax sa doom ji moom ñépp a ko bëgg mu ne waaye nag duma ko may ku dul jàmbaar léegi xam nga nu ñuy def mu ne ah mu ne ko gis nga jaan ji yeew bi amul bëñ ubbi gémmiñ gi mu ne ko dugalal sa loxo mu ne nii gis ci kaw ba ci suuf gisul benn bëñ mu ne ko du màtte mu ne ko du màtte damaa bëgg bu ma ko tegee ci digg dëkk bi rek ma ni ku ko jàpp rendi ko rek dinaa la may sama doom rek nga tëb na nga tëb ci kaw tribune bi rek bërëngu ak sa paaka rek rendi ko su ko defee ñu ne jarbaatu buur bi jàmbaar la buur bi may na ko doomam mu ne waaw waa ji daal di génn dem takku jël ay ngànnaayam takk buur bi woote daal ne tey damaa bëgg a woo jàmbaar yëpp ci place sàngam ndax dama leen di may sama doom ku ci gën a jàmbaare ma may la sama doom bu jigéen ba ñëpp ñëw dëkk bi ñi yaakaar jàmbaar yëpp ñëw buur bi daal di génne jaan bi ci digg pénc bi affaire bi naan nii di yëkkati bopp bi di génne làmmiñ bi di génne bët yi buur bi ne jaan bi ku ko rey dinaa la may sama doom ji te fii ngay xeex ak moom rey ko ba pare naan nii jarbaat bi nag di ko piis naan ko nii jarbaat bi moom fu mu toog mu ngi naan ah est-ce que bii la sama nijaay daf maa bëgg a alag rek est-ce que piégé wu ma daa mel ne bii moo gën a gudd de ndeysaan ma ngay toog di xalaat mu ngi jóg mais xelam dalul ba benn waay jóg fële rek daal di plongé ci jaan bi daal di koy reen ni ñu may ko ndaw si moo tax tàppet boo takkoon bëri it xol bi naan mi ngi nii accident mi ngi nii xol bi mooy gis moo tax Xaalid nee na tàppet yàlla na dee kon sahabatul kiram ñoom li ñu gënoon bëgg ci kaw suuf mooy dee ci yoonu yàlla dee dee ci yoonu yàlla ku daan dem jihaad sa soxna da lay gunge ba ci mun kër ngi mën a la nijaay nga naan wala bu ne bul delsi de fexeel ba bul delsi benn fexeel ba bul fi ñëw ñu jam la ci ginnaaw yaa ngi dégg de fexeel ba boo fii delsi buñ la jam ci ginnaaw fexeel ba bul daw de da nga ànd ak say gor ay gor da nga ànd ak ay julit say moroom say nawle ndeysaan am na ñoo xam ne bu ñu daan ñëw di tàgg yonent bi yonent bi di leen wax mun leen dem dañuy jooy pourquoi yonent bi di leen wax dellu leen beneen yoon même ay xale am na ñaari xale yu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent dañu bëgg a ànd ak yow dem bi jihaad yonent bi ne leen yéen ñaar ay xale ngeen mun leen dem ba caag mu ne kenn ki yow ñëwal comme xëy na kookoo gën a njool mu ne ko yow ñëwal waa ji daan ne yonent yow kii nga woo ne na ànd ak yow kii maa ko mën yonent bi ne ah lii wane ne yaa ko mën mu ne nañ afal ñu ñu bëre yonent bi ne bismillah mu yenn waa ji ba ci kaw dóor suñu ne gis nga maa ko mën yonent ne kon ñoo ñu dem kon gis ngeen sahabatul kiram ñoom dañu bëggoon xeex ci yoonu yàlla dañu bëggoon dee ci yoonu yàlla ndax ñàkk bëgg xeex li muy waral keroog ba jullit yi bëggee jihaad nga xam ne foo leen gis ñu ngi takku jaas yaa ngi ci mar yi ñu ngi ko takk seen ndigg fas yaa ngi takku ku nekk mu ngi entraîné fasam mu ngi ko jox mu lekk ba duuf ku nekk say bagage mi ngi la jege keroog kenn ñemeetul woon jullit yi ci kaw suuf mais xool leen tey xool leen tey julli di ndeysaan niñ leen yabee niñ leen ñemee liñ leen di wan loolu moo tax ma wax sànq ne yàlla lépp lu mu digle rek njëriñ a ngi ci tey noonu yi saa yu ñu duggee ci benn dëkk jullit li ñuy njëkk a def mooy rey xale yu góor yi ba ñu jeex tàkk viole jigéen ñi lakk lakk góor yi mag ñi ñu lakk leen paa yi màgget lakk leen sotti leen essence taal leen xoolal Bosnie Herzégovine liñ fa rey ci ay jullit kenn xamul nu mu doon xoolal Tchétchénie xoolal Irak Iran bi bi fa américains yi duggee rey nañ fa un million musulman mooy xeex bi ngeen di gis mu passé ci Irak un million musulman rey nañ leen Palestine moom kenn du wax li fa Israël di def lii yëpp lu ko waral mooy jullit ñi dañoo ragal dee jullit ñi tey booy compter seen lim ci àdduna un milliard lañ ak genn wàll un milliard démb jullit ñi ñetti téeméer lañ woon ak fukk ak ñett ñu samp islam tey ñun un milliard lañ mënuñu taxawal l'islam sahaaba yi ñoom ñaari mbir lañ yoroon mooy imma shahada wa imma nasr su ngeen ñu bàyyee dañ doon wax ñi ñuy xeexal su ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla bu ngeen ñu reyee ñu dem aljanna kon ñoom pertuñ puisque ki ngay xeexal mu gëm ne boo ko reyee aljanna la jëm su la reyee day samp lu yàlla bëgg kooku mënoo xeex ak moom ñun suñu problème yépp mooy bëgguñu dee bëgguñu dee loolu moo dal julli ñi tey loolu yonent bi saa salaam doon wax ne yàlla dina leen natt ñaari mbir dal leen mooy xubbu dunia wa kirahiyatul mawt yéen dina toog ba caag rek mu ne maa ngi seen yahut ak nasaraan di jiiroo jullit yi comme nu ay ponkal toogee di jiiroo boolu ceeb yonent bi daa toog ba caag rek mu ne maa ngi seen yéeféer yi ñuy jiiroo jullit ñi comme ni ay ponkal toogee di jiiroo boolub ceeb sahaaba yi ne ko anahnu qillatun yawma izin ya rasulallah xanaa day fekk ñu tuuti mu ne laa bal antum yawma izin kasir walakinakum xusaaka xusaau seyl déedéet da ngeen a bëri torop waaye da ngeen a mel ne puurit puurit jullit ñi tey dañoo bëri mais amuñu njëriñ jëlal rek misaal bi ci Sénégal Sénégal jullit yi ak ñi dul jullit ñan ñoo ëpp jullit yi nee nañ quatre vingt quinze pour cent musulman fan la feeñ benn njëriñ la am samedi la ñuy feetu ak dimanche samedi yahudi yee ko moom dimanche chrétien yee ko moom jouru jullitu jouru feetu jullit ñi kenn du ko feetu muy vendredi bu koriteeg tabaski ñëwee kenn du leen may feet su Noël ñëwee ñu mayee ñaata jour élèves yi ñaata jour lañ leen di may Noël ak Pâques ah 15 jours su tabaski ñëwee ak korité kenn du mayee feet wala kon kay moo tax mu ngi nii kon ban njëriñ ñun lañ am ban njëriñ la jullit yi am ci Sénégal léegi nag noonu nga koy gisee ci Sénégal noonu la amee ci adduna bi jullit ñi tekkeetuñu dara tey rey benn yahut benn yahut ñu rey ko crime la contre humanité ñu rey benn peuple musulman ba ñu jeex tàkk kooku benn benn benn débat la boo xam ne bon war nañ ko war nañ ko étudier quoi benn benn mbir la moo xam ne war nañ war nañ ko xool ndax mais bu fekkee yahut la moom kooku crime contre humanité xoolal Hitler bi mu reyee juif yeeg léegi ba léegi lu ngeen dégg ñuy wax gaa yi ngi koy màggal di ko feetu George Bush ak waajoo yu ñu doon wax mu ngi sukuraat ci Israël arrière Sharon li ñu rey ci ay musulman kenn xamul nu mu toll mais est-ce que dégg ngeen ñu ne dañ leen di juger George Bush est-ce que dégg ngeen ñu ne dañ koy juger dégg ngeen ko humanité bi est-ce que neen dañ koy condamner ndax dafa rey ay jullit un million musulman la rey Irak mais loolu kenn du ci wax parce que ay jullit la ñuy rey mais mbokk yi saa yi ñu reyee benn yéeféer tey ci adduna bi wala événement 11 septembre ñëpp a jóg même a jullit non c'est pas normal ah ah te jullit yi ñuy rey kenn du wax waaw ñoom ñooy wax fii du ngeen ragal yàlla ngeen jóg toog te ngeen diglu du ngeen ragal yàlla alquran bu ñu koy jàng kenn du wax fa iza quri alquran fastami'u lahu bu ñuy jàng alquran yàlla nee na ngeen déglu ndax yàlla yërëm leen kan moo bëgg yàlla yërëm ko kon déglul ku dégluwul nag yàlla du la yërëm mbokk yi kon wax ji mooy jullit ñi ba ñu bàyyee jihaad bi leen yàlla sant keroog ba jullit ñi takkoo di jihaad kenn ñemewu leen tooñ kenn ñemewu leen laal kenn ñemewu leen xalaat wallahi ñépp a leen ragaloon benn jullit ñaari yéeféer la doon xeexal téeméeri jullit téeméeri yéeféer lañ doon xeexal benn junni jullit ñaari junni yéeféer lañ doon xeexal xoolal Omar rek Omar buuru Rome dégg na turu Omar rek tiit mu yónnee benn manduub mu ne demal nga xoolal ma kan mooy Omar nan la toll nu mu mel fan la dëkk lan mooy armam turu Omar rek la dégg mu ñëw Medine mu ne Omar laay laaj ñu ne ko Omar heure bii de boo demee ci marché bi fekk ko bu dem ci marché bi Omar laay laaj ay commerçant ne ko jaaroon na nii sànq mu tourné koñ ana Omar laay laajte ñu ne ko jaar na mbedd mi mu tourné mbedd moomu Omar laay laaj benn waaye ne ko mu ngi ne la tëdd ci garab gi mu ñëw fekk Omar a ngi tëdd ci suufu garab mu ngi njaganaa ay ay dàllam mi ngi tëdd di nelaw président de la république buy nelaw ci suufu garab njaganaa yoo say dàll kenn garde wu la waa ji ñëw ba tiim ko mu ne kii mooy Omar gars yi ne ko waaw mu xool ko ba caag ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta xakamta atte nga wa adalta nga maandu bi nga attee maanaam jiite nga peuple bi bi nga leen jiitee nga jiite leen ci yërmandeeg maandute moo tax nga am kóolute nga am sécurité moo tax nga ñeme ñëw ci suufu garab gi tëdd nelaw kan moo ñeme lool est-ce que Macky Sall ñeme na ñëw ba ci benn garab mu tëdd di nelaw est-ce que Ablaye Wade ñeme na ko ah parce que maanduwuñ parce que attewuñu dëgg parce que jubuñ loolu kese la yàlla dafa def nit ñi boo leen jiitee nga jiite leen ci yërmande yàlla jël xol yu ñëpp ñu bëgg la yàlla moo def loolu waaye bis boo leen jiitee ci violence ci rey ci dóor yàlla bañ la ñëpp bañ la loolu xam ngeen ci dara ah loolu xam ngeen ci dara de ay fan rek yu néew rek gis ngoon ngeen benn waaye boo xam ne sénégalais yi moom lañ gënoon bëgg mu dem mujj gi ba moom lañ gën a bañ ndeysaan te bi muy falu commencement bi da doon yéeg ci ay Dakar dem dikk di nuyu nit ñi mujj gi ñemeetul tukki génn na sax dof sànni ko birig dof jël birig yen ko oto bi dof su nit demee ba ba ay dof bañ la dof waxuma nit njaay yi de dof nga xam nga ne kooku yàlla nee na bañ nañ la Sénégal nag dañ dul jàng nit boo demee ba dof bañ la dof ku amatul xel bañ la war nañ xam ne kii war na xoolaat boppam mbokk yi su ñëwee ci aaya bi ñu war a jël tey sunu boroom subhanahu wa taala di ñu jàngal mu ne aawudu billahi min alshaytani alrajim bismillahi alrahmani alrahim kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وعسى أن تهبوا شيئا وهو سر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سن بروم سبحانه وتعالى نينا كتب فرطالفنا kutiba santaaneef na farataal nañ ci yéen yoonal ko sant nañ leen kutiba farataaleef na aleykum ci yéen alqitaalu xeex xeex te mooy xare kutiba furido mooy farataaleef na fardan muakkadan farata bu ne keng saa yoo déggee farata mooy loo xam ne bu la neexee bu la naqaree def su la neexee ak su la naqaree comme koor farata la su la neexee bu la naqaree julli farata la su la neexee bu la naqaree loolu mooy farata farata mooy loo xam ne yàlla daf la ko sant su la neexee ak su la naqaree da nga koy def soo ko defee nga am tiyaaba boo ko bàyyee nga am bàkkaar soo ko defee nga am tiyaaba boo dee yàlla fay la nga dugg aljanna boo ko defulee nga am bàkkaar yàlla mere la boo dee nga dugg safara loolu mooy farata mu am beneen mbir bu ñu naan sunna soo ko defee nga am tiyaaba boo ko bàyyee doo am bakkaar mu am lu ñu tuddee makruh lu ñu sib boo ko bàyyee am tiyaaba boo ko defee doo am bakkaar am lu tudd xaraam boo ko bàyyee am tiyaaba boo ko defee am bakkaar am lu tudd mubaax boo ko defee doo am tiyaaba boo ko bàyyee doo am tiyaaba ah mi ngi mel ne añ añ kaay añ noo añuma koo ko def koo ko def jeex na doo am tiyaaba doo am bàkkaar dafa ko kenn si ngeen loolu mooy mu baax soo ko defee waaye am na sax noo xam ne boo ko defee da ngay am tiyaaba moom mu baax moomu li la ñuy wax ahkaamu hukmu shar'i yi ñooy atte santaane lislaam bi yépp fii la fii la yem juróom yi kese la yàlla lim ñu sant yépp ci juróomi mbir yi rek la tegu mooy fard sunna makruh haram mubah yàlla santaane lii la lépp lu ñu la sant xoolal yi ban la ci leneen nga gis ku xaabaabal ci sunna leneen nga gis ku xaabaabal ci makruh léeg-léeg gis ka ku xaabaabal ci mu baax ñaar yi ñoo ci ëpp importance mooy al fard wal haram ndax yooyu fal force la bee fal force nga def bii fal force nga bàyyi julli fal force la boo bàyyee am bàkkaar sàcc fal force la boo ko defee am bàkkaar koor fal force la boo ko defee am tiyaaba fen fal force la da nga koy bàyyi boo ko defee am bàkkaar farata mooy lu yàlla santaane xaraam mooy lu yàlla tere mustahab mooy lu ñu bëgg nga def ko mooy sunna makruh mooy lu ñu sib comme da ngay nelaw léegi ci kaw léegi ci kaw léegi ci kaw da ngay nelaw yéegi ci kaw nga ci kaw jàkk ji nga nelaw foofu ñi nelaw yëpp mën nañoo dem ci kaw ñu bañ a xatal espace bi kuy nelaw rek yéegi ci kaw ku bëgg nelaw rek yéegi ci kaw ngeen bañ a xatal jàkk ji ci kaw dafa féex ñii ñëpp dañuy nelaw ci suñu borom subhanahu wa taala mu ne kutiba farataaleef na aleykum ci yéen alqitaal xeex qitaalul kaafiriin xeex ak yéeféer yi bi jihaadihim hatta yaslamu aw yu'tul jizya ñaari mbir na ngeen ko def na ngeen xeex ak yéeféer yi ak bokkaalekat yi ba samp kàddu yàlla wala ñoom ñu jébbalu nekk ay jullit suñu lànkee ñuy fay impôt dafa am benn boroom xam-xam ndeysaan da daan wax waa Sénégal ne leen yéen bëri ngeen torop lu ngeen naan sunna sunna sunna sunna koo wax mu ne sunna sunna lii sunna la man damay dund sunna mu ne waaye waaw yéen yéen ñooñu ne da ngeen di dund sunna alquran ñaata aaya la ci yàlla wax waqaatilu ñaata aaya la waqaatilu xeex leen ne lu tax du ngeen wax ne da ngeen di xeex ñaata waqaatilu moo nekk ci alquran te yooyu yëpp farata la mu ne balaa ngeen naan sunna wax leen farata bi ba pare yàlla dana ngeen xeex yéen ya ngi ni ragal ba pare naan da ngeen di dund sunna waa ji loolu lañ daan wax waqaatilu yi ci alquran yëpp farata la te ñun lay waxal te ba léegi ñun ñu ngi nii pareeguñu boo ne woon benn waaye kaa ñu xeex mu ne yaa ngi yaa nii démb man démb lañ ma may soxna de dafa am ay mbokk dañoo weeru koor dafa jotoon jouru laylatul qadr ci benn jàkk bu ñu organisé woon qiyaamul layli am benn ustaas bu ñu waxoon yow yaay def waxtaan bi ustaas bi ñëw def waxtaan bi bay ñibbi mu guddee ñu ne ñetti nit dam leen ngeen yóbbu ko këram ñooñu bi ñu ko yóbbee ba këram ba mu dugg tëj ñett ñooñu daan ne waaw eh nañ leen jaar fi waay yee ay quelque mbokk ne leen nañ ñëw ci xiyaamu layli parce que ñoom ñëwuñu ñu jàdd benn kër fëgg ñu ne leen kookan la ñu ne ñun la ku ngeen di seet ñu ne diw ñu fëgg waajoo ñu ne ko wuyul sa mbokk ibaadu yi ñoo lay seet mu ne mi deux heures du matin ñooñu ne ko ah mu ne ñoo ñaan la gars yi ne ko ñun la yéen ñaan mu ne ñu ne gars yi ne diw ak diw ak diw mu ubbi mu ne leen lan la kenn ci ñoom ne ko dafa am ay yahud yu ñëw léegi fii gars yi jox ñu ndigal nañ leen rey man ak yow ak kii ak kii nañ leen rey léegi mu ne waaye lu ngeen di wax nii gars yi ne ko ah mbokk yi ñoo reeñoo loolu léegi léegi nii ñu ne yahud yaa ngi place sàngam nañ dem rey leen bu rew jàng mu ne non man daal vraiment damay nelaw quoi daal dëj mu dem dëkk ndeysaan moo tax bëri na ku lay wax fii sunna day wax rek ñu ñëwoon gaa yi xeex yi du ñëw sunna nag dafa neex sunu sunna bi dafa neex de ak a neex def loxo yi ci dënn bi am sikkim tent ko ba mu rafet daal di sol benn koppati diw ba leer daal di gàttal sa tubéy loolu yomb neex na trop sunna la de waaye dafa neex nag am na yeneen sunna xeex ci la bokk samp kàddu yàlla te boobu mooy pay boobu moo boobu nag moom la adduna bi ñàkk sunna boobu la islaam ñàkk waaye gis ngeen sunna bi ñu ko doon dundal xool leen nu mu def danoo dundal adduna bi yëpp islaam di tasaaroo di dem ñu takk seeni fas waaw ndeysaan ñi mujjoo ñëw xuruj ci jàkk ji lan la ñuy wax ñu ne saxaaba yi bi ñu ñëwee ba Maroc dañoo dugal géej dañoo dugal seeni seeni fas ci biir géej gi fas yi dem ba fii ci biir géej ñu waat ci yàlla ne bu leen leeroon ne ginnaaw dëkk bi ay nit ak fa danañ xuus géej gi dem yóbbu dis diine ci l'islam fan la bàyyee ko màkk lu ko indi Sénégal tëdd di nelaw ay nit ñoo bàyyi seeni kër bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom tëj seeni atelier bàyyi seeni liggéey jotte li ñu kàddu yàlla gi moo tas l'islam moo tax partout dans le monde foo dem ci yenn dëkk yi nga fekk fa ay bàmmeelu saxaaba boo demee Inde fekk fa ay jullit yu ñu suul boo demee Égypte boo demee Turquie foo dem nga fekk fa ay bàmmeelu saxaabatul kiram ñu bàyyi seen dëkk Màkka chaque jour damay faral di wax ci tomb boobu ne fa ñu bàyyi moo gën ci àdduna bi la fa nekk moo gën maqaama Ibrahim ñaari ràkk lan la la yàlla di fay ñaari jàkk ci biir kaaba gi lan la la yàlla di fay junni rakk safa ak marwa naan ndoxum zamzam hajaratul aswad boo ko laalee baal nañ la sa bakkaar xoolal loolu ni mu neexee tey jii kenn ci ñun bu fa dëkkoon rek tëdd booy jàpp jàpp ndoxum zamzam ah julli ñaar rakk maqaama ibrahim laal hajaratu aswad daw safa ak marwa ñëwaat tëdd ñaar tiyaaba nga yam waaye xoolal ñoom loolu li muy am importance yëpp sahaaba yi dañ ko faa bàyyi parce que lan yonent bi moo leen ne fal yuballighi shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke mbir mi jottali leen ko ñu ñëwagul acca sahaaba yi tasaaroo am na ci koo xam ne bi muy tàggu këram dafa bàyyi jabaram mi ngi ëmb mu dem nekk ñeen fukki at ci àll ci àll bi ñeen fukki at la nekk ci ci dëkk ci ci àll bi ñeen fukki at mu ñibbi Medine mu ñëw bisu àjjuma mu fekk jumaa ji ñuy julli benn xale bu góor taxaw di xutba waar nit ñi ba ñëpp di jooy jumaa ji ñëpp di jooy ñu julli àjjuma ba mu jeex góor gi génn jël ay dàllam xale bu góor bi doon jiite daal di génn góor gi daal di koy nuyu ñaanal ko yàlla xale bu góor bi jiitu góor gi topp ci ginnaaw ñu ngi dem ku nekk ngi jëm seen kër xale bu góor bi ñëw ba ci benn buntu kër taxaw fëgg buntu bi paa bi fekk ko foofu mu taxaw ne ko ah salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam mu ne du yaa doon waaraate ci jàkka ji mu ne waaw mu ne lu baax li nga doon wax ba pare nga bëgg a ñëw kër goo dëkkul di fa dugg kër goo xam ne ay jigéen a fi nekk fii loo fi wut xale bu góor bi ne ko non man fii laa dëkk yow yaa fi dëkkul ñoom ñaar ñuy xuloo yaa fi dëkk dëkkoo fi soxna si daal di génn daal di song góor gi xëcc ko taf ko ci dëgg ci dënnam daal di gestu xale bu góor bi ne ko kii mooy sa pap 40 ans góor gi gisul doom ji fan la nekkoon ci liggéeyu yàlla ñun ñun ñun ñun kan ma fi bàyyi benn ngoon wala benn suba ngir yàlla ku mus a génn suba rek suba 8 heures ba 5 heures ci ngoon nga ñëwaat ngir yàlla ñun ñii fii koo xam ne non non heure boobu du ma ci am jot non non du ma ci am jot ah kañ ngay am jot ma xool dimanche non dimanche bii di ñëw dama am tour euh, dimanche ba la ci topp dañu am match ma xool non troisième dimanche bi ma xool ma xool non mais non waaw boobu baax na boobu baax na allahu akbar ba pare ñuy wax fii ne suñu wax bari rek diine bi ñoruñu xam ngeen góor googu toog 40 ans bàyyi doom jooju lan la wax dafa sujjóot mu ne maa ngi sant yàlla mi may sama soxna ku ko mën a liggéeyal mu daal di dellu dugaatul ci kër gi mu ne maa yow soxna si am nga léegi ku la liggéeyal mu dellu mu ne ko maa ngi liggéeyali sama borom duggul ci kër gi dafa dellu liggéey ci ba noonu la deewee ñibbi siwaatul ci kër gi ñooñu noonu lañ meloon mbokk yi noonu lañ meloon ci bëgg yàlla ci liggéeyal ko pour diineem ji taxaw moo tax loo gis ay fan yu néew yonent bi génnul àdduna dul samp nañ islam ci kaw suuf gouver islam di gouverner ay islam di gouverner yonent bi génnul àdduna lu dul biir golf bi yépp laa ilaha illa allah muhammad rasulullah buur yépp di tuub waaw sahaaba yi fu ñu demoon suñ leen ne lu ngeen fii ut ñu ne dañoo ñëw pour génne leen ci àdduna bu xat bi yóbbu leen ci àllaaxira gu yaatu gi dañoo ñëw génne leen ci jaamu gi ngeen di jaamu nit ñi pour ngeen jaamu yàlla ñooñu bu ñu bañee ne waaw bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag da ngay gis kenn rocc ci jaasi ji ni ko kii mooy nekk suñu digganteeg yéen kii mooy nekk suñu digganteeg yéen allahu akbar ñëpp a ragaloon sahaaba muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëpp adduna bi yëpp laax dañ leen ragaloon c'est parce que boobu dañoo gëmoon li leen yàlla wax ñun loolu yàlla wax ñun bañ ko tegee lañ torox julli ñi tekkeetuñu dara booy tukki sax léegi nga am yenn sikki mi dañ naan la non mais mais yow eh non non non billet yi jeex na doo fi dugg wala nga sol yenn melokaan yi doo dem léegi da ngay gis jullit bu war a tukki dañ naan la non booy dem da ngay changer sa look quoi da ngay wàññi sa sikkim bi tuuti xaw a nga sol benn kap sax bon nga costume quoi dóor benn torpedo nga ne ko nii quoi pour gars yi duñ la xàmmee quoi il faut nga changer pour pour pour ñu mun laa accepter nga dugg soo wàccoon aéroport ak yenn melokaan yi dañ naan lii lañ lay def xoolal da ngay wàcc rek ñu tourné waat la ne la yow amoo fi place yow doy na parce que lan parce que jullit nga jullit moo tax ma ne jullit tekkeetul dara ci kaw suuf xoolal fi ñu yonent bi bàyyi woon mooy ñëpp ragal jullit yi tey jullit ñi dañ leen a ñeme amul ku leen ragal lu tax mooy dañoo bàyyi santaane yàlla kutiba farataal nañ aleykum ci yéen alqitaal xeex waaye loolu yàlla sant leen wa huwa moom kurhun lakum yéen da ngeen koo bañ kenn ci ñun bëggul xeex lu dul sahaaba yeeg yonent bi ñooñ dong ñoo bëggoon xeex te san yonent bi jógee na xare jullit yi naaj ñii seen tànk dagg ñii seen bët tuuru ñii seen loxo dagg ñii ñu jam leen ba mënuñu taxaw dañoo ñëw bëgg a toog yàlla ne dellu yonent bi daal di takkaat xare daal di delluwaat kenn ci ñoom waxul non man sama benn bët bi daa tuur beneen bi gisul gisuma yonent bi ñu ne yonent lu xew yonent bi ne yàlla nee na bu ñu teg arme yi nañ delluwaat ci front bi parce que boobu ju yéeféer yi dañoo wax ne julli ñi ñu ci ëpp dañoo blessé kon nañ leen bàyyi bañ dem Médine ñu eggali leen yàlla jibril wax ko yàlla wax ko jibril jibril ñëw wax ko yonent bi yonent bi ne bu kenn teg armam ñépp ci front bi taxaw nga gis borom benn tànk yu ñu dagg démb lañ dagg tànk bi mu ngi nii taxaw xool leen médecine jamono yooyu kii loxo baa ngi dagg mu ngi nii ñu takkal ko ci baat bi mi ngi taxaw ak beneen loxo bi yor jaas yi ci kii benn bët baa ngi tuuru ñu ngi ko fajaguñ ko sax commencé ñu ngi ko takkal ni morso benn bi mu ngi taxaw yor jaase ñu taxaw ñetti fan yéeféer yi yëg ne jullit ñi kat takkuwaat nañ ñu ngi taxaw frontière ñu ne ah kon kat ñii li ñu doon wax ne dañoo blessé du dëgg ñu ragal bañ a ñëw jàngeen jàngeen histoire keroog ba yonent bi saa sallam di yónni mu'tata mu ne diw yow yaay yor leer drapeau bi abdullah ibnu rawaha yaay yor drapeau bi soo faatoo na ko diw yor ah soo faatoo na ko diw yor ñett lañ la yonent bi tànn maintenant kenn ki di rakku imam ali bi jaafar allah yubarik fiik jaafar jaafar dem yor drapeau bi ñu dagg loxo ndeyjoor bi mu capté drapeau bi ak loxo càmmoñ bi ne kat drapeau yàlla drapeau bi lan lañ ci bind laa ilaha illallah mo drapeau boobu warul laal suuf ma drapeau boobu sahaaba yi dañoo rusoon drapeau boobu di wàcc beneen drapeau di yéeg ci kaw loolu la jullit yi xalaatul mooy yéeféer yi bu ñëwee ci lis ci ci dëkk jullit rey jullit yi seen drapeau la ñuy samp wàcce drapeau l'islam bi sahaaba yi nag ñoom dañoo rusoon drapeau l'islam di wàcc gis nga jaafar bi ñu daggee loxo ndeyjoor bi loxo càmmoñ bi la capté drapeau bi ñu dagg loxo càmmoñ bi mu matt drapeau bi ak gémmiñ gi matt yéeféer yi fekk foofu dóor ko jaas yi jaas yi xar bopp bi xar baat bi xar ba ci xol bi Abdullah ibnu Rawaha jël drapeau bi ñooñu noonu lañ meloon jàngeen histoire ki dalaloon yoon bi saa sallam Médine muy Abu Ubayda al ansaari Abu Ayyub al ansaari dafa silmaxa nekk paa bu gumba am ay juróom-ñaar fukki at sahaaba yi di xeexi mu ñëw naan ana Xaalid ana Xaalid ibnul Walid xaay ne ko maa ngi nii mu ne ko sallim lin liwaa jox ma drapeau bi jox ma drapeau bi ma yore ko ñu ne ko yow góor gi yow da ngaa gumba mu ne ah fan la yàlla wax ci lislaam gumba du xeex yàlla dafa ne dem leen bu ngeen amee doole ak bu ngeen nekk ñëwee doole maanaam bu ngeen màggetee ak bu ngeen nekkee ndaw moom noonu la firee aaya boobu infiru xifaafan aw siqaalan mu ne xifaaf mooy boo nekkee màgget siqaal mooy boo nekkee jeune mu ne aaya boobu ku ko dégg da nga màgget sax dafa war a dem jihaad gis ngeen gumba googu xool leen gumba guy xeex gumba mu dem ñu rey ko ñun ñun ñëpp am bët ñun ñëpp ñu ngi xoole bi ñu ragalee samp kàddu yàlla ragal noon yi ci la musiba am ci lañ toroxal lislaam daa di ñàkkal fayda jullit yi jullit yi amatuñu dara lu ñuy tekki ci kaw suuf kenn considéré lu leen dara gis ngeen pour ma wan leen loolu ngeen gëm ko bi ñu jàppee Xadafi nan lañ ko def dañ ko dañ ko rey hmm? bi ñu jàppee Saddam Hussein bisu julli tabaski nan lañ ko def ci bisu tabaski jullit ñëpp di rey seen xar ñu ne leen waaw ñun ñun benn jullit bu ngand la ñuy tabaskee américain yi jàpp ko pendre ko bisu tabaski bi ñu jàppee Gbagbo nuñ ko def ke ba léegi rey ñu ko kenn du ko rey parce que du jullit bu doon jullit la rek ñu rey ko mais comme du jullit kenn du ko rey parce que am na bàyyi ku dee am nga ku la jooy li El Hadj Omar waxoon El Hadj Omar Fouti moo waxoon wax ji may wax mu ne ku dee am nga ku la jooy ba mu des l'islam l'islam amul ku koy jooy dëgg la wala Saddam bi ñu ko jàppee rek dañ ko rey daa mënoon nañ ko jugé ji mënoon nañ ko jàpp dem jugé ko comme nit ñi def kii déedéet Kadhafi bi ñu ko jàppee mënoon nañu ko def loolu dañ ko rey rey yu ñaaw lañ leen rey gis ngeen ba pare ba léegi utal ko archive beneen mooy xoolal Oussama Ben Laden ñoom ñoom ñoom ñoo ne dañ ko waaw léegi bu fekkoon ne dañ ko rey sax luñ ko war a def dañ ko war a bàyyi ak julli ñi moom ñu sang ko suuf ko ñu ne dañ koo rey lakk ko ba mu nekk dóom ñu sànni ji ko ci biir géej gi ñoom loolu la ñuy wax lañ def lu tax parce que jullit la parce que jullit la amul kuy wax lu tax ngeen def loolu ana waa droit de l'homme pourtant droit de l'homme dañuy bañ ko rey nit waaye l'homme musulman bokk ci l'homme musulman bokkul ci droit boobu de droit boobu l'homme yéeféer moo ko moom parce que yéeféer bi moo tëral loi boobu xool leen li may wax ci àdduna bi yëpp jullit yi amuñu benn droit amuñu benn droit rey rek xam nga seen droit mooy lan xoola Omarul Moutar fan film bi fan yëpp ñu ngi koy teg ci télé Omarul Moutar quatre-vingt-dix ans ñu jàpp ko pendre ko libi rey ko quatre-vingt-dix ans te loi dañu ne ku am quatre-vingt-dix ans même boo defee crime kenn waratulaa rey loolu la àdduna bi yëpp signé mais quatre-vingt-dix ans ca jamono yooyu ñu jàpp ko muy màgget ñu jàpp ko pendre ko rey parce que lan parce que jullit la ma ne ñun jullit yi lii yàlla wax ñu mooy farataal naa ci yéen xeex waaye wa huwa moom kurhun lakum lu ngeen bañ la waaye wa asa makruh fi nufusikum tabaan lu seen bakkan yi bañ la xeex ooy tey sax boo doon wax jihaad boo fi nekkoon léegi ci télé yi ak rajo yi naan jihaad jihaad léegi ñoo bu la dig mais yow jihaad ji ngay woote yow loo loo- yow yow yow lan ngay yokk na jihaad a ngi ni yàllaa ko wax mais est-ce que mës ngeen gis conférence thème al jihaad an ana ana ana conférence yi ñii conférence bi su nekk ñii conférence bi su nekk dañuy conférence thème wala julli julli thème añ maak thème azaka azaka giléem thème ndogu ndogu nu ñuy ndogoo nu ñuy xëddee lekk rek waaye thème al jihad gisaguma ko de bëreegul de gisaguma ko de thème jihad ah, naka la ñuy def ba delluwaat jihad samp kàddu yàlla te loolu la ñu yàlla sant de mooy ñun ñii ñëpp waruñu dee jóge li Sénégal lu dul Sénégal dafa nekk dëkku l'islam soo waxee na Sénégal nekk l'islam am na benn waay bu toog ci ginnaaw naan mais ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi joxe azak ñu ngi aji màkk ba pare waa ji naan nañ nekk ay jullit nañ nekk dëkku l'islam ñun nekk guñ dëkku l'islam de Sénégal état lan la loolu ngeen bind ci këyit état laïque lan mooy laïcité mooy dund sans yàlla sans Dieu loolu moo tax suñu carte d'identité yi xam ngeen lan lañ ci bind kan moo fi am carte d'identité am nga luñ bind sa bos da nga koy génne luñ ci bind benn peuple benn ah waaw benn peuple benn jubluwaay benn ngëm-ngëm xoola ngëm-ngëm gi lañ mujje ci lislaam ngëm lañ war a wax dañu war a wax ngëm peuple jubluwaay waaye ñun ñu ne ngëm lañ mujje parce que gëmuñu ngëm lañ mujjee ci carte d'identité yi xool ubbi leen fenu ma de ubbi leen carte d'identité yi jëlee leen ko ngeen xool ngëm moo mujjee te ci islam ngëm moo jiitu al iman lañ lay wax al iman yàlla buy woote lu muy wax yaa ayuha allazina amanu buy wax lu muy wax inna allazina amanu mu nga iman moo jiitu ci islam ñun iman moom mujjee mu nekk seen troisième ba fu mu rii di baaxee peuple bi bu ñu ko tabaxee tabax jubluwaay bi te tabaxuñu ngëm gi du baax moo tax lu ngeen gis peuple baa ngi ni mënut a tabaxu mënuñu jopp mënuñu bokk jubluwaay bi c'est parce que ngëm gi moo baaxul waaye bu ñu tabaxoon ngëm gi ba pare kon leneen li ñëw yëpp day dem yàlla nee na dama farataal ci yéen xeex waaye seen xel yi seen xol yi bëgguñu ko wa huwa moom kurhun lakum lu ngeen bañ ci seen bopp la bëggu leen ko makruhun fi nufusikum da ngeen koo sib waaye yàlla nee na wa asa amaana amaana ci yàlla la nag du amaana de day am asa saa yoo ko gisee ci alquran tufidul yaqin bu yeboo nga firee ko ne lu wóor bu yeboo nga am ci kóolute asa ci alquran day am yàlla saa yu waxee amaana ci alquran luy am la doomu aadama moo naan amaana te du am waaye yow suba di nga dem Dakar waaw amaana ma dem de waaw yow doomu aadama nga waaye yàlla saa yu ne amaana ma def dara loolu mu wax daf koy def tu fiidul yaqin dafay tekki ne yow bi yàlla di waxal bu yeboo nga am kóolute mu leer ci yow ne li yàlla di wax day am ah waaw asa asa mu ne wa asa xëy na amaana an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loolu ngeen bëgg sharrun lakum fekk musiba moo ci nekk pour yéen lii bëri na doomu adama bëri na mu bëgg dara fekk loolu mu bëgg yëpp lan moo ci nekk musiba pour moom is benn waaye ndeysaan bu bëgg oto commencé liggéey rek dem école bu ñuy jàngalee oto ñu ne ko lan la mu ne oto laa bëgg waay temps yi moom noo def ma régler benn oto ndeysaan jàng permis ba mokkal dem ci banque bi ñu lebal ko xaalis mu dem jënd benn 4x4 wala benn nangam premier jour bu mu ci yéegee mu daanoo moom ci kondir bi daal di dee wa asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum bëri na nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg sa musiba la benn waaye buy xaru pour tukki tukki non damay tukki non wallahi bu ma tukkiwul bu ma dee du ma tàlli mu ne cëpp dëkk ba daal di dee ñu woote seen waa kër téléphone xam ngeen diw ñu naan waa moom de dee na de mu barki ne mu la dem ñu naan waaw dee na de ndeysaan amoon nañ benn imaam yal na ko yàlla yërëm imaam bi dañoo julli fajar ba pare ci jàkk ji nekk suñu wet mu ne asalaamaaleykum mbooloo mi ne waaleykum salaam mu ne maa ngi leen di tàggu damay tukki diw laa fi bàyyi ak diw benn waay bu toogoon di xulóog moom naan ko lu tax man bàyyi woo ma fi man nga fi daan bàyyi lu tax nga fi bàyyi diw mii lu tax ak diw imaam bi daal di jóg dugg ci néegam ñu calmé waa jooju doon xuloo imaam bi dem tukki cinq jours ñu woo waa koñ bi ne leen imaam dee na Gabon suul nañ ko foofu imaam a ngi foofu ñibbisiwul ba léegi te du ñibbisi xoolal bëgg a tukki ndeke xamoo fi nga jëm loo fay fekki ndeysaan bëgg nga dara fekk loolu nga bëgg baaxul ci yow wa asa an tuhibbu shay bëri na ngeen bëgg dara loolu ngeen bëgg baaxul ci yéen te nag mun naa ko joxe ci misaal yu bëri doomu aadama yi bëgg nañ loolu fekk loolu baaxul ci ñoom alternance bëggoon ngeen ko de fan ngeen mujje fan ngeen mujjee ak alternance gars yi yéen waa Sénégal fu ngeen mujjee ak alternance mooy jël seeni yat jël yat utali utali assemblée naan lan na touché lan ah na touché lan ma constitution bu kenn laal sama constitution gis ngeen foog ngeen mujj jëlaat yat taal dëkk bi yëpp ñu ñi gaañu ñu gaañ ñi ñi blessé ñi dee pourtant bëggoon ngeen ko bëggoon ngeen ko yàlla mu ne wa huwa sharrun lakum baaxul ci yéen gis ngeen mën nga kaa wax ci lu baree bari yàlla xam ngeen lu tax doomu aadama yi yàlla ne leen amaana yenn saa yi ma sant leen xolo koor koor ni mu méttee ñun bëgguñu ko waaye lu baax ci ñun la mais bëgguñu ko yenn saa yi nga dikku ne waaw koor gi kañ la ñu ne koor gi cinq jours la chuu mais te noo def ñu woor rek mais il faut ñu woor ah non mais surtout suba mu toogaat waaw ñaata ñaata fan moo ci des yaa ngi ne ko suba la dem huuhuu non c'est pas possible quoi non c- merde ñu ne lan la mu ne suba la koor ñu ne waaw bugguma ko non bu ma sañoon kenn fi woor ndeysaan ay dégg jullit di wax loolu jullit jullit pourtant loolu muy bañ xoolal wa huwa xayrun lakum loolu moo gën ci moom ndeysaan shahru ramadan weer wuy dindi bàkkaar sahrul xayr weeru yiw weer woo xam ne bu ñëwee yàlla day tëj buntu safara ubbi buntu aljanna ak ak a néew xuloo ci weeru koor xuloo ci weeru koor ak a néew xeex ci weeru koor xeex weeru koor ak a néew waxuma amul de mais néew na de weeru koor ku la gaañ sax yow yaa ko naan baal naa la baal non non non non non non non toi aussi dégg nga mais bu dee di weeru koor day gis xol yi dënn yi tàng mais gis nga shahru rahma weeru yërmande day gis koo gis yenn saa yi ndeysaan nga gis ku- ku gàddu ku gàddu ay bagage am café meew tàndarma jëm jàkka ja foo jëm gaa yi laa yóbbu ñu ndogu boo ñëwee ku jël benn doo wax dara ku jël ñaar doo wax dara ku jël ñett doo wax dara dangay bàyyi rek gaa gaa yi ndogu leen bismillah eh wax dollil waay dollil bu doon takk la te du takk laa wax takk fee du du koor nga jox kenn benn guro mu ne nga ne ko joxoon naa la léegi benn tàngal maan nga ne la joxoon naa la joxoon naa la jox la sax wala ci weeru koor yaa ngi naan gaa yi bismillah bismillah bu dee weeru koor nag waa ji benn muus nga ko beñee nga ko jox rek mu ne la sëñ bi nga ne ko ma loon léegi la waaye lu ma la c'est pas sérieux toi quoi commencé di gis ngeen allahu akbar yàlla moo wax dëgg yàlla moo wax dëgg bëri na ma sant leen dara fekk loolu ma leen sant ngeen bañ ko fekk moo baax ci yéen waaye yéen mun leen xam mun leen takk appareil yi nga xam ne lii da ngeen di xam moo baax ci yéen donc mun leen ko takk amu leen appareil yooyu ngeen mën a utiliser pour ngeen xam li leen yéen yàlla sant yéen njëriñ moo ci baax ixwaan yi yàlla ne wa asa xëy na an tuhibbu shay ngeen bëgg dara wa huwa loolu ngeen bëgg sharrun lakum lu bon ci yéen la di nga gis benn xale bu góor buy xëccu di xeex di rey boppam pour takk benn xale bu jigéen fekk xale bu jigéen bi baaxul ci moom mu ñëw wax ko papaam mu ne ko déedéet mu wax yaayam mu ne déedéet mu dem ci ay mbokkam ñu ne déedéet mu fipp dugg ci fan lay mujj mooy waxoon nañ ma ko may dëgër bopp waaye mi ngi nii tey gis ngeen waxoon nañ ma ko may dëgër bopp parce que moom mbëggeelam lay wone nit nit su bëggee dara loolu moo tax yonent bi bi muy orienté jullit ci mbëggeel mu ne ahbib habibaka hawnan ma asa an takuna baghidaka yawman ma sooy bëgg bëggal ndànk bëggal ndànk koo mën a bëgg rek bëgg ko ndànk bis a ngi ñëw mën naa nekk sa noonu xool leen Abdoulaye Wade ak Idriss Seck fu ñu mujjee xool leen Abdoulaye Wade ak Macky Sall fu ñu mujjee Abdoulaye Wade lan la wax mu ne Idriss Seck yàllaa ko bind mais maa ko ah man kii maa ko créé bu melee nii man la ndax nu ñu meloon ñoom ñaar góor gi tamit ngóor si tamit mu ne paa bi lu mu xalaat rek xam naa ko xalaat xoolal ñoom ñaar ni ñu meloon waaye fan lañ mujje fuñ mujje tas ba dootuñu jaaroo taal mooy koy bëgg bëgg ko ndànk koy bañ tamit yonent bi nee na bañ ko ndànk bul bañ ni turu bis a ngi ñëw mu nekk sa soppe su boobaa looy wax fekk da nga koo bañoon looy wax te loolu loolu ay misaal am na ji nga bañ nit bañ boo xam ne bis ñëw rek nga fekk dugg ci benn bi- place rek moom moo fay chef nag moom rek moo la fa mën a lijjantil sa mbir nga ñëw naan doo am loo wax ndeysaan gàcce rek gàcce rek musiba moo tax koy koy sooy bañ nit nekkal ci digg bi sooy bëgg nit ëppal la ñuy bañ ëppal ëppal bañ nit ba mu ëpp bëgg ko ba mu ëpp ñaar yooyu yëpp da ngay am mbetteel bis yemal ci digg bi rek soo ko bañee nekk ci digg bi bu ci ëppal bu ci xaabaabal soo ko bëggee bul ci xaabaabal ndànk ndax yàlla moo yor mbir yi te xamoo mbir yi su yendoo fu muy fanaan su fanaanee fu muy xëyee mbokk yi yàlla nee na bëri na ngeen bañ dara fekk loolu ngeen bañ ngeen bëgg dara fekk loolu ngeen bëgg musiba la pour yéen waaye mu ne wa asa an tuhibbu shay bëri na ngeen bëgg mbir wa huwa loolu ngeen bëgg sharrun lakum musiba la ci yéen sànq yàlla aaya bi mu waxoon mooy da ngeen a bëgg dara da ngeen a bañ dara fekk loolu ngeen bañ jàmm moo ci nekk lan lañ bañ xeex xeex jàmm moo ci nekk ndax bu ñu xeexee yéeféer yi ñoom bugguñu dee dund lañ bëgg ndax ñoom alaaxira amuñ fa dara moo tax ñun bu ñu xeexee tàmm xeex tàmm xeex yéeféer yi dañ ñuy ragal parce que dañ naan ñii dañoo bëgg ay xeex boobu ñu bëgg moo ñuy aar kenn dootul violer suñuy jigéen kenn dootul rey jeunes yi kenn dootul rey paa yi kenn dootul lakk tool yi kenn dootul nëxal ndox mi xoola Israël li muy def Palestine est-ce que xam ngeen ne waa Palestine du ñu naan xam ngeen loolu fi ngeen toog tey Palestine suuf si boo gasee ndox mu bon mooy génne parce que Israël dañoo yàq suuf si waa Palestine ay gutt la ñu yor di rooti Égypte Palestine amul ndox mu neex laa wax mu ñuy naan ma wax leen ko tey ay gutt la ñuy root Égypte di ko jaaral ci ay tunnel diggante Égypte ak Palestine pour mën a naan ruq yoo xam ne dañ ko gas ñaari nit rek ñoo ci mën a jaar ñaari nit nit kenn buy ñëw keneen di ñëw kenn ki day tafu nii tafu ci biir suuf si lañ ko gas pour ñu mën cee jaar di uti lu ñu nag lu ñu lekk wala lu ñu naan Israël dañoo yàq géej gi liñ leen may ñu napp ci géej gi mooy comme fii ak tali bi soo ko rombee seen bato yaa ngi ci biir géej gi dañ lay lancer roquette rey la yenn saa yi sax ñu ñu rey la dañoo koy tey nga wax ñu ne la fi ñu la waxoon nga yem nga yemut nit moom dëkkam moom géejam ñu may ko ci ñaari mètre ne ko fii ngay yem moo tax yenn saa yi mën nañu toog ay at duñu lekk jën te jën du nekk ci tefes Égypte la ñuy dem di duggi ñun ba léegi jullit ñi xamuñu ne suñuy mbokk jullit ñu ngi ci àdduna bi ñu leen di torturer ba tey ñu leen di teg ay métit yenn saa yi nga gis jullit bu woor ba ngoon ndogu jot mu toog ci kanamu télé télé di reetaan parce que ñu ngi koy indil benn pièce théâtre muy ree ci jamono jooju am na mbokk jullitam boo xam ne moom dafa woor te du ndogu dafa woor ba ngoon nii fekk amul ndox mu mu naan yow jamono bi ngay ree am na jullit boo xam ne mi ngi fële ñu ngi ko rey ndeysaan suñu conscience moo dee dafa am benn année añ màkka benn gaz explosé fa ay jullit yu bëri dee journaliste yi jóge woon Sénégal dem di joxe information bi xam nga journaliste bi lu mu wax li mu joxe information ba pare mu ne alhamdulilahi rabbil alamin amul sénégalais bu dee mais alhamdulilah waa Sénégal nañ sant yàlla amul amul sénégalais bu dee mais ñaata jullit ñoo dee jullit bu dee nga ni problème bi du problème mu nation du problème mu couleur du problème mu pays problème mu lan la al islam jullit ay jullit ñoo dee ndax jullit bu deewee yeneen jullit ñi war nañu wax alhamdulilah rabbil alamin ay jullit dee ngay sant yàlla parce que lan non sénégalais bokk ci allahu akbar problème bi du problème mu pays mbokk yi problème mu islam la ñu ñëpp wa anna hazihi ummatukum ummatun xam nga ñun dañu ne nation yàlla moom dane àdduna bi yëpp benn nation lañ suuf si benn suuf la borom bi kenn la nation bi benn nation la lépp ku weex ku ñuul ku xonq ku zone ñoom ñëpp boo leen boolee ñeenti couleur yaram yi moom la yàlla bind ñëpp benn nation la wa anna haadihi ummatukum ummatun waahid wa ana rabbukum faabuduuni wa ana rabbukum fattaquuni beneen aaya bi du ma deñ di fàttaliku Sénégal Mauritanie bi seytaane doxee seen diggante ba ñu xeex ndeysaan ab ay sénégalais jàpp benn naar di ko rey mu naan laa ilaha illa allah waa ji naan dóoral naar la naar bi naan laa ilaha illa allah waa ji naan dóor leen rey leen naar la mu naan laa ilaha illa laa ilaha illa kon mbokk yi li nu boole li nu boole mooy yàlla li nu boole mooy lislaam du du du du xeet li nu boole du xeet li nu boole du yaram li nu boole du làkk li nu boole yàlla la yàlla yàlla moo nu boole yàlla ñoo bokk benn yàlla wala ah ñoo bokk benn yonent ñoo bokk benn téere ñoo bokk benn xibla ñoo bokk benn diini xoolal liñ boole suñ demee ba ay noon jël ay frontière doxale ko suñu diggante def ñu ay couleur léegi yow dootoo xalaat jullit looy xalaat sa mbokk sa xeet sa réew xalaatatoo lislaam ku ne laa ilaha illallah rek mbir yi jeex na saxaaba yi dañoo demoon xeex yi bi ñu duggee ci àll bi rek ñu seen benn sàmmkat mu ngi yor ay gëléem ay xar béy kenn xamul nu doon mu naan leen asalaamu aleykum ashaaba rasulillah laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñoom ñu ngi ñëw moom mu ngi ñëw moom mu ngi leen di yuuxu baat boobu di leen wan ne man jullit laa benn waaye ñëw ba ci moom rek dagg bopp bi ñu jël li mu yoroon yëpp yóbbu dañoo dugg Médine rek jub jàkka ji rek yonent bi yuuxu leen waa ji ngeen rey lu ngeen jot ak moom benn saaba ne du jullit mu ne ko est-ce que yaa dugg ci xol bi nan ngeen di waxee ku ne assalaamu aleykum laa ilaha illa allah ngeen ne ko lasta muslim doo jullit ku ne la laa ilaha illa nga ni ko doo jullit ci la aaya alquran daa di wàcc yàlla mu ne wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta muminan lan la yàlla wax mu ne turiduna aradal dunia adduna dong ngeen bëggoon mooy waa ji li mu yoroon dong ngeen bëggoon jël keroog saxaaba bi reyoon waa ji dóoruñ ko jaasi nee na keroog adduna bi dafa xat ci man mënatuma dund gis ngeen kon laa ilaha illallah moo ñu boole mbokk yi du ay xeet moo ñu boole du du couleuru yaram moo ñu boole ndax ay africain lañ non man africain la kii guinéen la moi je suis sénégalais je suis malien je suis mauritanien loolu amul ci islam Mauritanie amul ci l'islam de Mali Sénégal loolu tubaab yoo ko fi def yàlla waxul loolu de islam amul frontière loolu nag lu tubaab yi xam xam ne l'islam amul frontière moo tax ñu daal di ñuy daggal ay pukus pukus xoolal Gambie fan la nekk ah ba pare bokkuñu ak sénégalais yi mu ngi mel ne sama làmmiñ bi ma ni bokkul ci sama sama yaram làmmiñ bi bokkul ci bokkul ci gémmiñ gi làmmiñ bi ne bokkul ci gémmiñ gi lekk bi ñëw di dugg làmmiñ ne ko xoolal bu ma laala bu ma laal parce que bokkul ci man mun na nekk wala bëñ ñi ne lekk bu ma laal de demal ci làmmiñ kese làmmiñ moo la soxla munul nekk lii nii moo tax tey l'islam am problème suñuy dóor ñee ñu ne yéen bokk leen ci tey bu ñu doon dóor waa Sénégal dañ naan waa Guinée ak waa Mali ak waa Gambie ak waa Mali yéen yéen yéen bokk leen ci waaw na ngeen se yéen ñu baax ngeen bu ñu paree ci ñooñu dóor leen ba ñu nooy gis nga ba ñuy rey Saddam Hussein boobu ñoom Kadhafi ñoom Moubarak ñoom Abdallah Salah ñoom waa ji nekkoon Tunisie nu mu tudd ah Ben Ali boobu ñu ngi toog di xool gars yi di dóor Saddam di ko jàpp bal sax yenn saa yi gars yi daal di ci indi seen ndimbal bi américain yi pare fu ñu dem taxa dafi lañ dem buñ paree fan lañ dem ñu dem ca Ben Laden noonu la ñuy wëree àdduna bi rek di wulli ay jullit suñuy wulli jullit yi ñeneen ñi taxaw di xool bu ñu leen wullee ba ñu noo ñu ñëw ci ñeneen ñi parce que jullit yi xamuñu seen bopp xam ngeen lu tax lii lépp bu ñu yàlla indilee lu baax wala ñun ñu gis lu baax ñu tëb ne lu baax la fekk yàlla ne lii ngeen gis ne lu baax la lu bonan ci ginnaaw wala yàlla daal di indi benn mbir ñu jàpp ne lu bon la fekk ci yàlla lu baax la xam ngeen lu waral ñaari yëpp wallahu yaalamu wa antum la taalamun yàllaa xam yéen xamu leen sunu borom nee na wallahu yàlla yaalamu mooy ki xam waaw yàllaa xam de wallahu yaalam wa antum la taalamun yéen xamu leen allahu akbar wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàllaa xam yéen xamu leen yàllaa xam xam ngeen lu tax ñun xamuñu wa ma utitum min al ilmi illa qalilan li ngeen am ci xam-xam dafa néew dafa limité yàlla nag xam-xamam amul limite te yàlla mooy aji xam yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko teg doomu aadama mooy tatone asamaan si yàlla bi mu koy sàkk ci xam-xam la ko sàkk ku weddi seetaanal documentaire yi jant bi bi ko yàlla defar ci xam-xam la ko defar biddéew yi bi leen yàlla defar ci xam-xam la leen defar te xoolal yàlla li mu defar kenn mënta ñëw xam lépp bu dee ci wàllu géographie da ngay gis boroom xam-xam yoo xam ne ñoom lan lañ jàng géographie kese kii xeer yi la jàng ñaata façon xeer ñaata façon montagne suuf si dundin wi kooku loolu la jàng loolu kese nga ñëw ci wàllu santé waa ji moom bopp rek la jàng bopp kii moom nopp rek la jàng juróomi at nopp kese boo ko nee bopp mu ne la non non non du sama domaine nga ñëw keneen moom bët rek ki jàng bët nuñ koy woowee of lan allahu akbar moom bët rek boo ko nee nopp sama nopp may métti mu ne non non yow tamit nga gis lañ bind fii nga naan ma nopp bi ngay dugg fii xanaa gisoo li yuuxu la nga ne ko baal ma man dama yaakaaroon ne rek blouse bu weex bi mën na leen kii dafa dof man bët rek laa xam bët mu daal di génn gis nga bët juróomi téeméeri at bët rek nga xam kii bëñ bëñ kii kii faj bëñ mu ngeen koy tuddee ah dentiste gis nga bëñ rek la jàng li mu jàng yëpp adduna am yëpp bëñ rek boo ko ne bakkan dina métti yow lu lay métti mu ne sama bakkan mooy métti ñu ne ban heure nga fi ñëw nga ne non huit heures laa ren ñu ne xanaa yow lii loolu lu mbind fi yow fii kii du faj bakkan waa ji da lay jéppi sax moom du xool du wax ak yow ñi nit ñi ñi rak ñoo naan noonu noonu demal du fii boo demee fële hôpital bële nga laajte ñooñu ñooñu am na ñoo xam ne ñoom der rek lañ jàng der der kese kooku loolu rek mooy métier am koo xam ne yax koo xam ne sang ah doomu aadama rek lañ nekk de gisagoo benn docteur boo xam ne def na lépp ci doomu aadama. kon kay ki defar lii xam ngeen ne kooku am na xam-xam bu la newul am naa xam-xam sax nga war a xam ne am na xam-xam koo xam ne xoolal li mu defar bi ko gaa yi bëggee nekk kii nopp bi rek la jàng kii bët rek la jàng kii bakkan kii gémmiñ boo ñëwoon ci bopp rek ci bakkan lii ma doon wax sànq bakkan nopp bët gémmiñ ñaata mbir la ñaata mbir la nopp bët bakkan gémmiñ ñaata mbir la ana cinq fan laa wax cinq nopp bët bakkan gémmiñ ñaata mbir la quatre ñeenti mbir ñoom ñeenti yépp seen ndox nuroowul te ci benn place lañ nekk muy bopp jëlal ndox mi nekk ci nopp nga xool nu mel jooyal nga dékk ko nga ñend dékk ko nga xool ñaari ndox yooyu tuflil nga xool ñoom ñeenti ndox yooyu ndax benn la benn bu nekk nuroo ak sa morom te ci benn benn place lañ nekk ci benn yax lañ nekk mais nuroowuñ de te benn bu ci nekk du manqué de bu manqué rek nga uti ko léeg-léeg nga gis ku bëri di métti mu dem ñu bindal ko tuufaay tuufaay lan la tuufaay lan la ndox gis nga léeg-léeg nga gis ku soj dem jënd karité wala mentalat naan xam xaw ma son affaire bañ muy di ñuux gis nga dafa am lu ñu manqué li yàlla defoon moo manqué ba nga ñuux ci leneen di ko remplacer te pourtant bu kenn ñëndoo nga ne ko yaa salte te mënu faa ñàkk nag foog mu nekk fa xam ngeen lu mu fay def am na ñoo xam ne ñenn sax xamuñu lu muy liggéey moo tax boo ko pertee am problème kon bu fi nekkee da ngaa war a wax alhamdulilah ala ala ni'mati ñandaxit xéewal la di xéewal la di ñandaxit